ñu ngi laa nuyu eh, di sargal ci bés bu màgg bi di la ñaan nga jëkk nuyu bokk yi ñu ngi sant yàlla ñu ngi nuyu bokk yi di leen tatagal ci seen place ci seen dëkk ñoo ko waxee ci bëccëg ci jumaa ji ne dëkk bi dëkki mboolem taalibe yi la ndax ki ko sanc yàlla rek a tax mu sanc ko ngir taalibe yi man fee daje ngir ñu man fee yaatu kon nag dëkki taalibe yi la dëkki mboolem soppe yi la bu ñu amee seen bés ñu tànn ko tey ngir daje fi te yàlla tax ak boroom dëkk bi di Cheikh Ibrahim radiallahu anhu kon danañ leen tatagal danañ leen yaatal danañ leen nuyu danañ leen ndokkeel tey ñaan yàlla yàlla mi ñu fi dajale mu jël suñu ziyaara bi nangul ko boppam defal ñu ci mbooleem yi nga xam ne yi moom lañ yaakaar ba tax ñu jóg te daje fi amiin allahumma hmm. bi lan moo ko waral ziyaara bi lu cosaanu la lu yàgg ci jamono Cheikh Ibrahim la ko mag ñi daje woon Alaaji Mabdu Ñang sëriñ Ousmane Ndiaye sëriñ Aliou Cissé sëriñ Mbaye Niass ak mboolem kilifa yi tolloo woon ak ñoom Cheikh Omar Touré Omar Lo ñu daje gannaaw buñ sante yàlla ci li nga xam ne moom lañ gis ci baay ci taxawaayam ci diine ji ci jubleem ci jàngaleem ñu ne war nañu tànn bés di daje fii ci moom di ko ziyaare di ko nemmeeku ngir yàlla ndax di nemmeeku ngir yàlla nit ak yàlla lu rëy la ñu ne nag gannaaw ñoom xam nañ loolu dañu bëgg di def loolu dañ daan def seen dajewukaay ca gannaaw komba fu waay mën a jógee ci gannaaw Saalum ñu bokk dajee foofa ca gannaaw komba foofa la ñuy doxee ak seen tànk ba egsi Medina loolu yàgg na booba ñun ñii ay xale lañ yaakaar naa ne dana dellu ci quarante wala quarante yi ba léegi ñu di ko def mag ñoo ña ko sosoon mag ñu baax ñoo ña ko sosoon ak ña ko fekkee woon ñi ci des bariwuñ sëriñ bi rafaal la bokk ba léegi mbir mooma dafa des di dox eh, ñu di ko def loolu mooy cosaanal ziyaara bi ndax yonent bi sallallahu alayhi daf ñoo wax ne yàlla wax na ci xadisul qudsi ne sama mbëggeel war na ci ñi nga xam ne dañuy bëggante ngir man di joxante ngir man di ziyaarewante ngir man ziyaarewante boobu diggante jullit bu nekk ak moroomam jullitam mbëggeelam yàlla mbëggeel ak yàlla war na ca rawatina nag boo xamee ne am nañ yaakaar ci nit kooku ne am na cër ci yàlla bés ba ñu ko jëkk siyaara bis yi ajjuma la woon ni bés bii wala mën nga koo takk naka jekk nag dañ daan tànn bés bi muy bési ajjuma ndax li tax ñu doon ko def noona dañu jàpp ne ajjuma mooy gën gi bés te itam wér na ne am na ci waxtu woo xam ne wi dañu wax ne mooy waxtu nangu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne waxtoo ngi ci bési ajjuma boo xam ne ku ci ñaan yàlla yàlla nangul waxtu woowa nag boroom xam-xam yi wute nañ ci ñii ne nañ mooy waxtu mujj wi ndax moo tax Cheikh ma Tidiane radiallahu anhu tëral si kër si ajjuma jullit ñi di ci toog di tudd yàlla ba ca saa su mujj ya ñu tëj ñaan yàlla am na ñu wax ne waxtu julli jumaa la ñu ne diggante fi ñaari xutba yi fi ilimaan di toogee ak fi muy jógee foofu waaye fu ci mën a doon daa iman waxtu ngëneel yi ak bés yi ngëneel yi ak guddi ngëneel yi yàlla daf koy nëbb ngir jaam bi farlu ci boromam waaye nag ziyaara bi moom naka jekk ajjuma la daan doon ndax liñ jàpp ne ajjuma mooy gën ji bés te jëf boo xam ne yaa ngi koy jëf ngir yàlla da ngay tànn bés bi nga xam ne yaakaar nga ne mooy bën bi bés bi gën bu fekkoon dañuy seet bés bi dëppoog suñuy masla dañ koy def samedi wala dimanche nga xam ne mbooleem ndi liggéey danañ ko mën a teewe waaye nag dañuy tànn bés bi nga xam ne moom lañ wax ne moo gën ci bés bu ay bi muy bési ajjuma loolu moo tax ñu di ko def bési ajjuma ñun ñi nga xam ne ñii ñoo fi nekk gannaaw mag ñooñu itam jéemuñ ci soppi dara dañ ko bàyyi ca cosaan lam nekkoon ba léegi moom alxaaji ibrahim yàlla taas ci barkeem eh, mu xaddamam yu mag yooyu nga xam ne ñu ñëwoon tàggu ne dañu ko bëgg a ziyaara mm-hmm. eh, lu mu ca teg lu mu jëflante woon ak eh, jëflante woon ak moom jëflanteem yëpp ci digganteem ak jaami yàlla yi ci yàlla li mu jëflanteeg ñoom mooy jàngal leen seen diine ba ñu xam ko yar leen ci yàlla yar seeni bakkan yar seen yaram tàggat leen ba ñu tàggatu ci yàlla jëriñu ci jëriñu ci seen borom jëflante ba ca gën a màgg loolu la ndax lépp loo xam ne lii dañ koy tabax te sukkandikuwut ci yàlla tabax googa du taxaw waaye nag boo xamee ne bi tabax ga dafa nekk ñeel yàlla mooy li nga xam ne li rot na ci waxi xadis makaana lillahi daama wattasal lépp loo xam ne dafa nekk ñaar yàlla dafay sax dafay jokk euh, loolu moo taxoon taalibe yooyu ko nose woon moom santu leen ko moom mu ngi nekkoon ci boromam ci di jëflante ak boromam di jëflante ak jaami yàlla yi ci kaw xam ne ñii ay jaami yàlla lañ yoo xam ne war na jëflanteeg yàlla ci ñoom loolu mooy naka mooy ne yonente bi sallallahu laa wa sallam dafa wax ne boroom xam-xam yi ci xeetam ñooy ñoo ñu ngi mel ni yonent yi banu Israil maanaa ñooy juble ba mel ni yonent yi nga xam ne ñoom la yónni yàlla yónni woon ci banu Israil kon nag bu fekkee ni ki yàlla dogal may ko xam-xam may ko leeri xam-xam xam-xam dana am te du ànd ak leer loolu ñun ñëpp dañuy janoog moom nit kii dana am xam-xam te fekk xam-xamam àndut ak leer alquran wax nañu ko afaraayta man ittaxada ilaahu hawa wa adallahu llahu ala ilmi ko ci kaw xam gannaaw dana am ci gannaaw xam ñu xam ne xam gu àndut ak leer mooy booba xam-xam waaye xam-xam waxtu wu ànd ak leer borom dootul réer loolu moo tax nag bi nga xamee ne bii xam-xam bi yàlla jox bàyyi dafa dafay xam-xam bu ànd ak leer mu dafa xamal nit ñi di leen ci jubal di leen tarbiya itam ñuy jëriñu ci seen diggante ak seen borom di di xam seen boroom xam-xam boo xam ne eh, beneen xam-xam nekkul ca gannaaw boo xamee ne bi yar na leen ñu xam seen boroom soobu jëriñu ci yàlla jëriñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëriñu ci Ahmad Tidiane loolu mooy liñ sàkku ci jàmm bu ko defee nag mu jub xam lépp lu muy def fam koy tëral loolu moo doon jëflanteem ak digganteem ak ñooñu nga xam ne bëggoon nañ ko fonkoon nañ ko te mbëggeel ga ak fonkeel ga yépp ñu ko tabaxoon ci yàlla aji abdullah mbir buy dox ci jamono bu mu yàggal lu bari dina ci ëlbateku hmm. ndax ñi doon jaare sëriñ bi noonu lañ koo defee benn waaw euh, li nga wax sax euh, lu am la ñu bari dana ñuy tuddoo sëriñ bi di wax ne doxalinam lañuy doxal fekk ñoom ca seen bopp sax soppali eh, am ni ñuy ziare sëriñ bi ci fii ci Medina lim fi bàyyi woon ba léegi mooy li fi nekk wante nag boo demee ba génn Medina ci yeneen i barab yu bari da fa fekk yeneeni i oote yoo xam ne dañ koy wéer ci Medina wax ne. Eh, di yari bàyyi la wala tarbiya bàyyi la fekk bàyyi bokkut ca loola dara loolu nag oote bu jóg daf cay am amoon na ci bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote lislaam wane ko mu leer nañ waaye yonent bi moo ñu njëkk a wax ne yahud yi fasantikoo nañ def nañ juróom kuréel ak benn yépp safara nasaraan yi def nañ juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yépp safara lañ jëm suma xeet danañ fasantikoo def juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett yépp safara lañ jëm lu dul benn ñu ne ko benn boobu mooy ban yow yonent bi mu ne mooy bi nga xam ne li ma nekkoon man mag suma saxaaba yi ci lañ nekk ñooñu rek mucc loolu nag bi ma Ahmad Tidiane radiallahu anhu ñëwee am na am nañu woote nekk ci tarixam def ca loo xam ne moom santaane wu te cheikh itam xamoon na loolu ba tax na dafa wax ne dénk ci dénkaaneem bu ngeen déggee lu ñu leen wax ne man maa ko wax jël leen ko ngeen peese ko ci balaasu sharia lépp loo xam ne li dëppoon ak sharia nangoo ànd ak moom jël leen lu ca uteeg sharia rek jël leen sànni lu lu leen jot rek jógee ci man peese leen ko ci mandaxaay sharia lu ci dëppook sharia jël leen lu ci dëppoot ak sharia bàyyi leen kon xamoon na boobu ne ci yoonam danañ ci indi loo xam ne lii du dëppook sharia fekk jógewut ci moom waaye nag moom dal na koy dàq may nit ñi itam liberté bu day ni lépp luñ la wax ne Cheikh Tidiane la ko wax indil mandaxam sharia teg indil alxuraan indi sunna seet ndax lii mën nga koo sukkandiku ci alxuraan wala sunna bu fekkee gisoo ne mën nga koo ci sukkandiku rek dàqal waxal ne du waxi Cheikh Tidiane wala xataa ne na moom sax bu fekkee moo ko wax baal eh, bàyyi itam foofu la tëral ne na moom ci yoon wi yonent bi jaaroon sallallahu alayhi wa rek ci lay jaar waxtu boo xamee ne bii teggi na tànkam fi ko yonent bi teg la koy def bu bu bu bu yonent bi doxee mu dox bu toogee mu toog amul dara lu muy def lu dul daf ko wéer ci alxuraan ak ci sunna dundam lépp loolu la jàngale lim bind loolu la jàngale lim wax loolu la jàngale lim jëfe loolu la jàngale waaw Aji Abdallah lu xew ci jamono rek nit ñi sikkal ko mhm. euh, siyaaree am na ñoo xam ne ñi dinañu koy dingat mhm. waaw eh, ñuy dingat ziyaara dañu xamul li tax a jóg ziyaara ndax ci suma wax bu njëkk wax naa leen yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ci xadisul qudsi ne suñu borom wax na ne wajabat mahabbati lil mutahabina fiya wal mutabadilina fiya wal mutazawirina fiya te loolu muy wax bu wér jógee ci yonent kooku nag kon naka la kon nit di mën a sikkan sikkalee am beneen xadis bu wax ne nit ku jóg di ziyaara ci nit te yàlla rek a tax waxtu wuñ dajee ba joxante loxo la leen yàlla di njëkk teralee ñoom ñaar mooy basen wala mi bakkaar kon ziyaara boobu naka lay sikki amma lañ cay dajale ci seeni alal di ko yóbbu loolu kenn laaju leen ko képp koo xam ne kii gis nga ne teraanga la nga war a jël euh, sa addiya yóbbaale ko ci sa sëriñ jox ko ko loola def nga ko muy sa hadiya te eh, yonent bi sallallahu alayhi wa ba tey moo waxaat ne tahaadu tahaab day leen joxante hadiya bëggante nit ki waxtu wu mu yëkkatee xaaj ci alalam jox la dana am lu mu def ci sa xol ci nit ak nit rek nit yàlla yi nag waxtu woo xamee ne bi jox nga leen seen alal alal jooju dañoo xam palaasam bu baax ñu defal la ko mu di la jëriñ eh, jëriñ jaam yàlla yi Cheikh Ahmad Tidiane moo daan wax ne eh, sama natt ci seen bëggeel mooy dee leen ma jox seen alal doomu aadama ji fu mu joxe alalam rek xolama nga bu ko defee nag bu fekkee yéen a ngi joxe seen alal di seen xol yi nekk ci man ma mën leen a jëf alal jooje jublu ci woon pour moom jëriñoo nit ku am waraaw la woon ku wattandiku la woon jëfandikoo loo xam ne lii wóor na ko ne daganut ci naka noonu xulafaa om yépp noonu lañ kon nag ziyaara euh, ku ko diingat diingat nga ngëneel loo xam ne lii sax na ci na sax na ci mboolem nit ñu baax euh, nettali nañ ci solo ñu ne dafa am benn nit boo xam ne dafa jóg diggante dëkk dëkk di nemmeeku ji di ziare ji benn mbokkam yàlla yebal benn malaaka ne ko te loolu xadis la ne ko boo demee nga dogandi ko nga laaj mu jóg mu ne ko yow foo mu ne ko ci dëkk sànq looy doxi mu ne ko diw seeti mu ne ko loo fay wuti mu ne ko da mu ne ko ndax danga am ci moom alal joo bëgg mu joo bëgg a yar maanaam joo bëgg mu sax ci yow mu ne ko déedéet da ngeen jëflante mu ne ko déedéet da nga am jigéen joo bëgg a labat ci moom mu ne ko déedéet li nga xam ne mooy soxlaay addina yépp mu laaj ko ko mu ne ko déedéet mu ne ko kon lu la tax a jóg dem di ko seeti mu ne ko yàlla mu ne ko waaw kon nag maa ngi lay proposé la mu ne ko lan mu ne ko sa nemmeeku googu dama bëggoon nga jaay ma ko ma jox la junne dinaar nga wàññeeku mu ne ko soxla ko danaa def mu teg ñaari junne mu ne ko soxlawut moog moom ba mu ne ko du ma ko jëndee àddina ak li ci biir yàlla ma tax a jóg te lépp loo xam ne yàllaa tax ma di ko def du ma ko jënde leneen mu ne ko maa ngi lay ndokkee man duma nit malaaka la sama borom moo ma yebaloon ngir ma nattu la ndax euh, euh, lii ngay def jëmm ma tax wala taxut moom nag dara ump ko xam na ne jëmm ma tax wante nag wax na ne yow ak ki nga jëm yépp mbëggeelam ak ak aljannaam war na ñeexal leen loolu jar na ziyaarante kon nag nit ku baax mënta weddi di jóg di nemmeekonte ngir nit yi àddina yi sax loolu la ñuy def ñépp ñi nga xam ne dañu bokk maslaa dañuy jóg jóg seetiwante ngir nose ak ngir maslaa yi àddina boobu ñu bokk rawatina nag ñi nga xam ne yàlla mu màgg mi lañ bokk ñooñu kenn waru leen a gën a ànd kenn waru leen a gën a nose kenn warul leen a gën di seetante kon loolu loolu laa ci am pour tontu. moom a laaj Ibrahima su bis bi jotaan di bis bu màgg ci moom lu mu daan faral di gën di dénku bokk yi bokki taalibe yi. Euh, buy jo bu jotaan dana génn waxtaan ak taalibe yi ci yëf yi dana waxtaan ak ñoom ci seen diine dana waxtaan ak ñoom ci seen tariqa dana waxtaan ak ñoom ci seen diggante bokk dénk leen itam li nga xam ne lii moom la jamono balaa ca waxtu woo mu digal leen waxtu wu ne loolu la leen daan wax bu ñëwee dana leen digal ñu war a jàppe seen diine niñ war a jàppe seen tarix niñ war a jàppe seen ak bokk ñu war a jëflante ñoomu leen seen diggante dafa dafa ëpp xaaj Abdallah fi mu nekk euh, waxtu waagee xat si te defaguñu jataay bi hmm. waaye duñu la bàyyi nag ndax yaa ngi bàyyi ko bu yàggul ci daje bu mag hmm. ci Maroc hmm. xanaa nga mosoon ñu tuuti rek bi daje mën a mu demee lu mu gàtt gàtt waaw daje boobu euh, buuri Maroc moo oote woon ci nadwa boo xam ne tariqa tijaan yi la ko jagleeloon tariqa tijaan ya ci àddina bi yépp fukki réew ak juróom benn daje nañ fa ba ñu dajee ñuy waxtaane mbiri tariqa bi ba ñu dajee bés ba ñuy ubbi congrès ba yàlla dogal na gannaaw bu ñu jàngee alxuraan suñu mbokk Oustaz Ibrahima Diop la ñu jox moo ubbi jotaay ba ci waxtaan waxtaan ya continuer ba ci ci man man itam ma waxtaan waxtaan ya continé mboolem délégation yi ci réew mu ne ku ci ne fa nga jógee ngay joxe sa xalaat ci tariqa bi lépp dégguñ masa jàmm tariqa bi sekki nañ ko bi ci keroog tuuma juñ ci masa teg te du dëgg keroog teggi nañ ko wax joo xam ne ji teg nañ ko tariqa bi alhamdulilah indi nañ ko nam gën a biree leeral nit ñi lan mooy tariqatu tijaniya la ca gën a am solo nag moo di mboolem délégation yi ñëwoon jóge Sénégal joge Mauritanie jóge Mali jóge Niger jóge Nigeria ba Soudan al Khartoum euh, li ëppoon ci délégation bi yépp ay taalibay bàyyi amut nag benn nit boo xam ne bii ci sa discours ci ñooñu discours nga ko ba noppi te waxoo jeexiti bàyyi ci tariqatu yi am na wax nañ ne dëgg la tariqa tijan tasaaroo woon na lu lu ko jiitu wante nag li ci yàlla def ci loxoom def ko ci loxo benn nit ci lu ko njëkk tasaaroo na tasaaroo goo xam ne gi addina yëpp nangu nañ ko benn naa taxaw na foofa wax ne dëgg la ñu ngi wax ne euh, Mauritanie fa la tariqa tijaan génnee tasaaroo loolu kenn weddiwu wante nag tasaaroo gu yem la woon ndax ci li yeewoon dex gi rek la woon dawaal yi ñoo nekkoon ay tijaan ci Cheikh Ibrahim te loolu naara ko wax ci Cheikh Ibrahim ci la tariqa tijaan duggee ci gàddu gu nekk ci biir Mauritanie loola seede bu maandu la mu wax ko ndax dafay dëgg beneen waaye bu jógee Soudan wax na ca ne dëgg la tariqa tijaan ñëwoon na Soudan am na sax ci eh, rafu niqaab bi nga xam ne Sukari jaa ko taalif am na ku ñuy wax Seyd Mahamadul Maahi boole na ko ci ñi nga xam ne daje woon nañ ak Cheikh Ahmad mu ne wante nag pour Soudan jëriñu ci tariqa Cheikh Ahmad dëgg dëgg mu ngi am bi saaxibul fayda amee muy Cheikh Ibrahim boo ko waa Soudan ba loolu la seddee waa Nigéria ba jóg wax ne ñun itam tariqa Cheikh Ahmad Tidiane ñëwoon na Nigéria jotoon na fa tasaaro benn benn jàppoon nañ ko wante nag lii nga xam ne lii moo ci am nit ñépp dugg ci tariqatu tijaniya ci jamono Cheikh Ibrahim la am waa Niger ba wax lu mel noonu waa Mali ba wax lu mel noonu kon nag ñun ay seede rek lañu faroon wax nañ li nga xam ne lii moo aju ci tariqa bi ak lan mooy tariqa Cheikh Ahmad Tidiane ak li ci liñ ko tabaxee liñ tabax tariqa bi mooy lan mooy gannaaw aoudu billahi min ashaytani rajim jàng fatiha gannaaw jàng fatiha ci wérdo bi mooy astaghfirullah gannaaw astaghfirullah mooy julli ci yonent bi gannaaw julli ci yonent bi mooy la ilaha illallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu lenn lu ci ne ci yooyu alquran ko dig astaghfirullah ni ko alquran diglee ci biir alquran kenn xamul naka la day julli ci yonent bi nag bi ñu ko yàllay digal dafa tàmbalee ci boppam ne moom ak i malaakaam ñoom ñu ngi julli ci yonent bi nag yéen ñi gëm dee jaamu yàlla yépp am na waxtu am na dayal am na nu mën a yem ba mu des tudd yàlla tudd yàlla moom yàlla def ne uskurullaha zikran kasir tudd leen ko tudd gu bari kon nag Cheikh Tidiane nose tariqa boo xam ne mu ngi ko tabax ci yooyu mu def subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin yonent bi wax ne képp ku bëgg ñu di la nattal ci nattukaay yu mat yi li ngay tëjee say wax ak sa jaamu yàlla na nekk subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin kon kay tariqa bu mel nii nga jàpp ci sëriñ bu mel ni Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci xam-xamam ci maandu nga xam ne xam-xamam la ubbee Fass Fass capitalu xam-xam la lu jiitu junne am ba léegi capitalu xam-xam mu dem fa jommal mboolem boroom xam-xam ya fa nekkoon ci xam-xam bañ nangul ko ñoom ñëpp demaguñ sax ci tariqa ak mbóot yi nga xam ne moom la yàlla def ci moom waaye xam-xamu sharia rek xam-xamu atte ci alxuraan ci hadis ci ahkam yi lépp ñu dem ba ñoom ñépp ña fa nekkoon nangul ko ne ko yaa ñor sëriñ bu mel noonu gis sët ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam askanam wér nga mën di lim maamam benn par benn ba sës ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy benn ngëneel muy borom xam-xam muy beneen ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko boppam muy beneen ngëneel ah, jox ko wirdo bi nose ko nii mu nose yow dëgg-dëgg tarixa boobu ko am dara loo ciy wax rek danga xamul li ngay wax Cheikh Ahmad Tidiane moomu nag moo wax ne benn faylu dana ñëw ci samay saxaaba bu ko defee nag nit ñi dinañ dugg ci tariqa bi ay mboolooy mbooloo yu amut lim ba mu ko waxee ca jamono góor yu mag yi fi feeñ yépp mbooloo yu bari dugg nañ ci seen loxo ci tariqatu Cheikh Ahmad wante nag ndax buñ nattee mbooloo yi ak mbooloo mi dugg ci loxo Cheikh Ibrahim dana méngoo loolu waxuñ ko nag pour wàññi xaqi kenn waxuñ ko pour leneen dañ ko wax ci buntëb wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis loolu rek la kon nag ñu xam ne faydu ba Cheikh Ahmad Tidiane doon digee feeñ na ci loxo Cheikh Ibrahim radiallahu anhu te te loola itam wax a feeñ na ca congrès ba ñeneen ay jàmbur ñu jóge ci yeneeni réew feeñal nañ ko bam leer nañ ni bëccëg te boobu ñun ñu ngi toog di xoole lii mooy li xew kon nag bokk na ci sant yàlla daje booba ñu daje yàlla def ca xéewal yooya mu ca def def ca ngëneel yu màgg yooya mu ca def ci tariqa bi ak ci faylu bi war nañ cee sant yàlla bégal ci mboolem mbokk yi ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla wax na ne buy santee ñu dolli ñu Cheikh Ibrahim daana wax ne yow suma borom maa ngi lay sant ba nga gërëm te boo gërëmee maa ngi lay santaat jërëjëf Niass kële yaa ci sa wax dana daal tarixa Cheikh Ahmad Tidiane na ci réew Mauritanie ndax loolu jiitu na euh, Cheikh El Hadj Omar euh, si mu jàpp ko waaw euh, bokk na ca waxtaan wa foofa suñu benn mbokk ci ñi demoon waxoon gannaaw bu délégation Cheikh Omar Foutiyou bi waxtaane bi mu waxtaane ba noppi mooy ku ñu wax abdullah doomi seyd alhaadi di sët ci mawlud Fall bi mu waxtaanee ba pare wax ci Cheikh Umar ak silsila ci modul gaali waa kër Alaaji Maalik yi wax seen silsila ci modul gaali mu jóg ñaan paro ne leen day dama defoon benn waxtaan bu gudd bu rëy ci sama maam mawlud Fall waaye nag gis naa ni sama maam dajale wuñu fi ah. li ñu fi dajale mooy Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu kon nag baax booba danaa ko teg wante nag ngir jubbanti yenn yenn rëq-rëq ci wax yi dama bëggoon ñi doon waxtaan ci Cheikh Omar radiallahu anhu ñu xam ne Cheikh Omar lu jiitu muy daje Mouhamadul Ghali ah, Abdul Karim bi ko jox wirdu yi Mamadou Fall moo ko jox naka noonu Seyd si Dakar Xaaji Malik mu ngi jaar ci sama maam Mamadou Fall wante nag li nga xam ne nii mu ne leen man sama maam ci sama baay mooy Mamadou Fall sama maam ci sama ndey mooy Cheikh Mahamadul Xaafis moomu ñuy wax nga xam ne ci Cheikh Tidiane jële jëlee Cheikh Tidiane ne na nga dem te bul feeñal sa bopp fekk yàlla feeñal mu ne kooku mooy sama maam ci sama wàll e, wante nag sonat googu am nañ ko sonat mooy waajale ci di mu ne sonat yooyu nag biñ ko amee te yàlla def mëdët am mëdët mooy tëbb ñu ne ndax ñun dañuy doy doyloo suñu sonat yi wala dañuy dem ci mëdët bi ñu ne dëgg-dëgg dañu war a dem ci mëdët ba ñu bay fas sënët yooya ak te jàpp tarixa bi ci Cheikh Mahamadou Xaali Mahamadou Xaali ci saabay cheikh yi la bokk ci ñi jàpp ci cheikh direct la bokk Mawlud Fall moom Mouhamadul Xaafis ak ko ko jox kon nag ñu ne daal eh, am na ko dox diggante Cheikh Alxaaj Omar Foutiyu ak eh, Cheikh Mamadou Xaali waaw wala ñaar ñooñu naka la ñu tudd kii Abdul Karim la tudd kii Mawlud Fall loolu lu wér la euh, waxtu bi dem na ñu bàyyi la te di la gërëmati. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi feddliwaat suñu nuyoo ci mboole mbokk yi di déglu ak di seetaan ñu ngi ñaan yàlla euh, yàlla defal ñu jàmm. ñu ngi gërëm mboole mbokk yi di gërëm itam suma rakk bi Cheikh Mouhamad Nazir euh, mi nga xam ne taxawaayam ci sama rel lu rafet la ci fii. mu ngi may dimbale ci li gën a am solo ci li ñu bay bayee mooy xam-xam ndax daara ji ñu samp e, moom lañ ci jiital mu wutuñu ci te mu ngi ciy góorgóorlu e, ko foofu ñëw na Banjul itam bëgg faa def lu mel noonu mu ngi cay góorgóorlu e, loolu nag te ci biir yooyu yépp nag terewul mu jubal ma njub loo xam ne fu ma neexul du fa yàlla fu ma neexul du fa faral loolu nag sant yàlla la maa ngi koy sant ci loolu ci mbooleem it sama rakk yi yàlla def na ñoom ñëpp fañ tegoon seen bàyyi fa lañ ma teg eh, loolu nag sant yàlla la ñaani seen bàyyi la sutura la ci kër gi maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbale ma ba yaakaar yi am ci man ñoom ñëpp yàlla wan leen ko ci man maa ngi di yaakaar yi baat ci ñoom yàlla wan ko ci ñoom. alhamdulilah. ajina siir dégg nga di kilifa gi wax. alhamdulilah ñëpp nañu wax alhamdulilah rabbil alamin tey na tëbb tey ci Cheikh Ahmad Tidiane ñëpp xam nañ ko. ci àjjuma ji ci saa si ci El Hadj Abdoulaye Niass. li nga xam ne moom rek moo dellu si rek alhamdulilah moom rek moo jóge fii ci senegal ci sëriñ dal di dem ba ci Cheikh Ahmad kon nag alhaaji Abdoulaye mooma moo dellu si bàyyi xam ne alhaaji Abdoulaye ñëw na moo toog tey kon nag alhaaji Abdoulaye moo ñu mën a tëbb tey ci Cheikh Ahmad Tidiane tëbb ñu ci alhaaji Ibrahima Niass kon nag ñu sant yàlla ci loolu ñu ngi léegi di gërëm ñun itam di la delloo di gërëmaane yow suñ mag alhaaji Abdoulaye Niass ñaan yal na la fi yàlla yàggalal yal na la fi yàlla saxal ba nga dolli ñu tëbb ci Baye dolli ñu tëbb ci Cheikh Ahmad Tidiane dolli ñu tëbb ci Alaaji Abdoulaye eh, ñu ngi sant sekk na itam di gërëm Seyd Mansour mii nga xam ne alhamdulilahi ba ko yàlla defee muy liggéey ci rajo gambi ba léegi eh, daf ñuy sotti rek ci Baye ay géej ay duusi duusi yoo xam ne yi ba léegi ñu ngi koy tëbb eh, mu emut foofu mu dal di ñëw bëgg a ñoo tëbbati ci yow nga xam ne alhamdulilahi yaay bunti duusi eh, alaaj ibrahima ñes alhamdulilah bi nga xam ne ci yow la ba yow la ñuy tëbbee ci ñun ci eh, mu ñëw nag <clears throat> tey ànd suñ sa xarit suñ xarit di suñ mbokk taalube di ibu bi tey mii eh, ànd itam caam yi nga xam ne eh, moom itam mooy tabax eh, ju jumaa jële ca ne ma funko nga xam ne Mouhamad Ndiaye ma Babacar Mouhamad Ndiaye mu moo ñu moo dimbale ca ki xam ne mooy président assemblée nationale ci Gambie ñu ànd ak itam ñu sàññan mi nga xam ne moom itam ca bijjulu moom rek moo fa doon di taalibe bàyyi ba léegi fi mu ne ñëpp nekk nañ di taalibe eh, ñu ànd ak itam suñu suñu xarit eh, di sa sa taalibe sa taalibe bàyyi te bàyyam nga xam ko moo bàyyam moo sa bàyyi la woon mooy alaaji Maguette Seck mooy Moustapha Seck mii alhamdulilah moom itam di suñ président yi daayira lépp lu sa bàyyi wax ak loo wax ci loolu rek danga ci la ñuy nekk loolu man maa ànd ak ñoom ci guddi gi e, ànd ak itam yu yónnee suñ doom e, sa doom Mouhamadul Moustapha ñees moom itam nga dal di ñuy yaatal ubbil ñu buntab baay ubbil ñu buntab Alaaji Abdoulaye Niass ba ubbil ñu buntab Cheikhu Tidiane tey ba ubb ba ubbil ñu buntab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi kooku ñu ngi la ciy gërëm yow Alaaji Abdoulaye Niass yal na la fi yàlla yàggal yal na la yàlla fay yal nañu la yàgg siyaare yal nañu la am sa ngërmaan yal nañu ñu tëbb ci bàyyi maa ngi lay ñaan tam sama xarit yi ma tuddal la muy Mansour mi ak Ibou mi ak eh, Seck Moustapha Seck nga tëbbal ma leen ci sa bàyyi te warlul ma leen alhamdulilah warlul ñu ñëpp ñu fi nekk yëpp seen aajo faju seen maqaama yokku alhamdulilah jërëjëf jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin ma sha Allah barakallahu fik والعيد لا جفاء على من تبسم ومن شاء ياتي ومن شاء انكر هو الفيض لا يابى على من تبسم وصول الدمير المالكين بأهلها لو أنه من لم يكذب بربها وتوبي ويابي بالمعارف لا ترى فقد كاثر الأقطاب أن بزاوية بمن إله الناس جل جلاله وقم به رسول الله كان نبيا ما شاء الله خليه شوي تقول له بالله حركه اللي تقبل وصول جميع الماسكين بحبلها تحققه من لم يكذب بربي يا وصول جميع الماسكين بحبلي تحققه من لم يكذب بربي وجوبي فاف في المعارف لم ترم فقد قصر الأقطاب عن درك شاويا بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طالبي حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والعكس في حالي مضيا قد علم الأقوام أني خادم فوصل حبيب الله ينفى بي وصلي وما قلت قولي شاطحا وإن خطوطي للأنام سعادة فلم يشقى يوما من رآني وخطيا وما قلت قولي شاطحا متبشحا وما مسني سكر يغيب عقليه وما قلتها دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباح لغيري ولا كله من حب سيد مرسل عليه صلاة الله فلتلي شأنيه تنورت حتى تحيرت إنما جلال رسول الله حير فكري إفاضته منه إليه محبة وسبحان رب لك روحي تجليا ومن سرها مت شوقا ومغراما أزيد اشتياقا حين زدت تدليا فما لي بوصل للحبيب وليتني أجاوره في حالته تمنيا عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة ذاكرها قبيليا آلهما الآل الكرام وصحبه ومن سلكون جلوى حبته قبل قدره صلى على سيدنا محمد وآله yàlla dimbale leen wul ak maru bëgg wul ak maru nga xam ne ka nekk ca bopp ba mooy saaxibul jalaala alxasan alsaani nga xam ne ka nekk ca bopp ba mooy saaxibul jalaala alxasan waxoon na ne dafa war lu mottali jumaa ji waxoon na ne dafa war lu mottali jumaa ji mu ngi dox nag mu ngi dox nag te yàlla dogal na. te ëpp ci matériel bi koy mottali. li ëpp ci matériel bi koy teew na. tey teew na. barki démb dama nekk tay ba. barki démb dama nekk tay ba. ñu wax ma ne ñetti 30 taxaw nañ fii indi ay matériel. ñu wax ma ne ñetti 30 tonnes taxaw nañ fii indi doon na ma jaaxal sax. mu ne doon na ko jaaxal sax. wàcce gi na muy demee wàcce gi na muy demee waaye wax nañ ma ne sama doom Xasan moo yéene ci jumaa ji waaye wax nañ ko ne sama Xasan moo yéene ci jumaa ji mooy Xasan Siise Xasan Siise moo yéene ci jumaa ji moo yéene ci jumaa ji oo dëkk bi oo dëkk bi yëpp ñu daje fi ak cawartaane gu mat sëkk ñu daje fi ak cawartaane gu mat sëkk wàcce wàcce ko te nam gën a rafetee te nam gën a rafetee loolu itam xeet la ci sant yàlla loolu xeet la ci sant yàlla ndax mënoon nañ cee yéex. ndax mënoon nañ caa yéex. kon ñi fi teew. kon ñi fi teew. te jógee ca Maroc. jógee ca Maroc. wàcce gi jafe woon. bu wàcce gi jafe woon. dana nekk gerte. dana nekk gerte la. kon itam. te kon itam. nañ ko fayee ca Ndakaaru. nañ ko fayee ca Ndakaaru. fay ko ca douane bi. fay ko ca douane bi. ko transit. fee ko ca magasinage yi. fee fee ko ca magasinage yi. génne ko ba mu egsi fii. génne ko ba mu egsi fii. bu dara desul lu may wàcce bi itam bu bëggoon a jafe ñu fay ko. bu dara desul lu may wàcce bu bëggoon a ko. waaye nag kon jërë ngeen jëf. waaye nag kon jërë ngeen jëf. ngeen ci taxawee ni ngeen ci war a taxawee. di ngeen ci wàcce ko. wàcce ko. kon lu ci nekk ngeen teg ko ci place ba lu ngeen teg ko ci place mu des beneen ngërmaate itam. mu des beneen ngërmaate itam. am na suñuy doom yoo xam ne jóg nañ. am na suñuy doom yoo xam ne jóg nañ. ak suñuy rak. ak suñuy rak. taxaw ci basangi jumaa ji. taxaw ci ëpp yëpp génne nañ. ba la ca la ko. indi ko fii lal ko ci jumaa ji. indi ko fii lal ko ci jumaa ji. loolu it xeet la ci liggéey ci liggéeyu jumaa ji. loolu it xeet la ci liggéey ci liggéeyu jumaa ji. te Baye boole na ci lim dénkaani woon wax naa ko suñ mbokki naar yi bañ dajee ci jumaa ji. mu ne Baye boole na ci lim dénkaane ne nañ def suñu yitte ci mottali jumaa ji. ne nañ def suñu yitte ci mottali jumaa ji. ba mu ko dénkaane ba léegi ne. ba mu ko dénkaane ba léegi ne. jamono Serigne Aliou. jamono sëriñ Aliou. waaw moom ñu ngi ci àndoon di ca def luñ mën. moom moom ñu ngi ci àndoon di def luñ mën. gannaaw bu ñu joxee gannaaw. gannaaw bu ñu joxee gannaaw. man ak samay rak. moom ak rakam. doomi sëriñ Aliou yi. ak doomi sëriñ Aliou yi. ñu ngi ci sonn lañ ca mën. ñu ngi ci sonn lañ ca mën. kon nag loolu. kon loolu. yàlla beneen sax. da ciy ñaanal yàlla yu beneen sax. day ñaan yàlla. day bu ci yàlla defam ndox. yàlla bu ci yàlla defam ndox yàlla. yàlla ca dañ ko bëggee. yàlla àgg ca dañ ko bëggee. ñu sanc ko. ñu ko. te nam gën gaawee. te nam gën a gaawee. ndax bàyyi defoon na ci ay warlu. ndax bàyyi defoon na ci ay warlu. waxoon na ne. waxoon na ne. jumaa ji saa yu àggee. jumaa ji saa yu àggee. ñun ñëpp yàlla dana dimbale ñu ci suñ mboole mi ittee yàlla matal ko. ñun ñëpp yàlla dana dimbale ci suñ mboole liggéey yàlla magal ko ko. kon nag yàlla nañu yàlla defal loolu. kon yàlla nañu yàlla defal loolu. soxla yëpp. soxla yëpp. yëpp. bu ñu jiitu mooy jumaa ji mat nañ ko bëgg. mooy jumaa ji mat nañ ko bëgg. yàlla ñu ko yàlla defal. yàlla ñu ko yàlla defal. suñ kanam. ci suñ kanam. ñu sanc ko. ñu sanc ko. te nañ ko bëgg. te nañ ko bëggee. Eh, ñu ngi gërëm mboolem ñi ci yëngatu. ñu ngi gërëm mboolem ñi ci yëngatu. nga xam ne yëngatu bi yëpp. nga xam ne yëngatu bi yëpp. luy jëmal jumaa ji kanam. luy jëmal jumaa ji kanam. luy jëmal sëy ji kanam. loolu warugar la ci jullit bu ne. loolu warugar la ci jullit bu ne. rawatina nag koo xam ne. rawatina nag koo xam ne. mu ngi tuddoo pays bi. mu ngi tuddoo pays bi. ñu ngi dellu di dénk suñu bopp di dénk mboolem soppe yi. ñu ngi dellu di dénk suñu bopp. yëg mu waral coono suñuy yëngu. suñuy yëngu. nañ ko def mu ñeel yàlla. nañ ko def mu yàlla. bëri na yëngatu yoo xam ne yii. bëri na yëngatu yoo xam ne yii. ña koy yëngu. ña koy yëngu. seen bakkan ak seen bopp rek ak saytaane moo leen moo tax ñu di ko yëngal. seen bakkan ak seen bopp ak saytaane moo ko yëngal. tey kat. tey kat. danañ ko tuddee bàyyi. danañ ko tuddee bàyyi. waaye bàyyi lu dañ ci yëngu bu jëmut ci yàlla bàyyi ku ca dañ na waaye yëngu bu jëmut ci yàlla bàyyi ku ca dañ loolu waxoon naa ko maa ngi koy waxaat. loolu waxoon ko maa ngi koy waxaat. maa ngi koy fàttali. mu koy fàttali. nañ wattandiku ñiy dox di naxe ci bàyyi. di naxe ci bàyyi. di cuxural seen i bopp. di cuxural seen i bopp. di sol ñetti kurus ak ñeent. di sol ñetti kurus ak ñeent. di am ay portale. di am ay portale. di tëgg di fecc. di tëgg di fecc. te wax ne loolu sa bàyyi. te wax ne loolu sa bàyyi. wallaahi ba loolu bàyyi du ca dara. mu ne wallaahi loolu bàyyi du ca dara. bàyyi li mu wane woon yoonam. bàyyi dafa wane woon yoonam. luñ xam. luñ xalaat la. mag ñam ca yaroon. mag ñam ca yaroon. ca loolu la ñuy yare. ca loolu la ñuy yare. ñi nga xam ne jot nañ dundam. ñi nga xam ne jot nañ ab dundam. xam ko. xam ko. loolu lañ xam ci moom. loolu lañ xam ci moom. siraatal mustaqim. siraatal mustaqim. yoon wu jub koj. yoon wu jub koj. nekk ca. nekk ca. yar ca ay njabootam. yar ca ay njabootam. loolu nag. loolu nag. duñ dañ di ko wax. duñ dañ di ko wax. ku ci yàlla na ma jubal. ku ci yàlla na ma jubal. da nga tegu ca yoonu njub. da nga tegu ci yoonu njub. ñu ngi ñaan nag ñëpp yàlla jubal leen ñu tegu ca yoon woowu la. ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yàlla jubal leen ñu tegu ca yoon woowu la. ndax. ndax. seytaane dafa mën a naxaate dafa mën a fëkk. seytaane dafa mën a naxaate dafa mën a fëkk. am na jamono. am na jamono. dox naa ci dëkki taalibe yu bëri. dox na ci dëkki taalibe yu bëri. yéen ci loolu. yéen. wax nañ ma ca lu ne. wax nañ ko ca lu ne. tuddee nañ ma sax til. tuddee nañ ma sax til. ma sant yàlla. mu sant yàlla. ndax booy yëngatu ci yàlla te loruñ la ca. ndax booy yëngatu ci yàlla te loruñ la ca. loruñ la ci wax loruñ la ca ci jëf. loruñ la ca ci wax loruñ la ca ci jëf. kon xëy na yëngu boobu yàlla daf ko nangu. na yëngu wax nañ ma lu ne. mu ne maa ngi doon def. xataa suma tukki mu wujj mi. mu ne maa ngi tukki mu wujj mi. wax nañ ma ci lu bari. mu ne maa ngi ci lu bari. waaye nag alhamdulilah. waaye nag alhamdulilah. bi nga xamee ne natiija bi nit ñaa ngi ciy teg seen bët. bi nga xamee ne natiija bi nit ñaa ngi ciy teg seen bët. li ma doon dox nit ñaa ngi jaraw moom. li mu doon dox nit ñaa ngi jaraw moom. te dana gën a leer incha allah. te dana gën a leer incha allah. man nag luñ ma ca mën a wax. mu ne loolu nag luñ ko ca mën a wax. bu ma ca amee ngërëmal yàlla. bu ca amee ngërëmal yàlla. am ca ngërëmal sama baay mi nga xam ne moo ma yar di sama sëriñ neex na neex na bu yàlla gërëmee bu yàlla gërëmee sama wàjjur a wax baal ne duñ mën a wax baal naa leen li arab yi wax nag. li arab yi wax nag. ne alqaafilatu tasiiru wal kilaabu tambax. la xaj yaa xaj yaa ngi ba waaye nag terewul gawar gaa ngi dem. mu ne xaj yaa ngi boobu waaye terewul gawar gaa ngi dem. gawar gawar gaa ngi dem. gawar gaa ngi dem. Eh, loolu mooy la xew. loolu mooy la xew. am na gaañu gaañu ci sama tukki mi. am na gaañu gaañu ci tukkee bi. yëg naa ñu bari ñu ma ca ndokk. yëg na ñu bëri ñu ma ca ndokk. ma ne alhamdulilah rabbil alamin. mu ne alhamdulilah rabbil alamin. man te ñàkk. man te ñàkk. loolu daf daan am. loolu daf daan am. kon nag ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi. kon ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi. ñu daal leen ndokk ci métit wala leneen. ñu daal leen ndokk ci métit wala leneen. yooyu doy nañu royuwaay. yooyu doy nañu royuwaay. yonent bi gën ñëpp. yonent bi gën ñëpp. ci moom lañ fanaan. ci moom lañ fanaan. ñun bàyyi mi suñu roy ñun bàyyi mi suñu nekk wax nañ ko ko. lu nekk lañ ko ko. ndokk yu ne ndokk lañ lii nag. boo gisee ma wax ko. mu ne boo gisee ma wax ko. dafa am leen di soppe yoo xam ne. dafa am leen di soppe yoo xam ne. métti na leen. métti na leen. ñu tey ci sama kanam wax ko. ñu tey ci kanam wax ko. defal naa leen. defal na leen. wax naa leen ne. wax na leen ne. bu leen faale loolu. bu leen faale loolu. te it nag. te it nag. dénk naa leen ne leen. dénk naa leen ne leen. bu leen ma indi la ci loolu. bu leen ma indi la képp ku ma wax lu baax. képp ku ma wax lu baax. bu ngeen indee loola. bu ngeen indee loola. danaa ca dégg. danaa ca dégg. ku wax safaan. dana ma doy. dana ma doy. kenn nit ci ñoom du janoog man. kenn wax benn baat. wax benn baat. loolu doy na ma. te arab dafa wax ne. arab dafa wax ki la jot li moo la xas. ki la jot li kat moo la xas. kenn xasu la lu may ki la jottali. kenn xasu la lu may ki la jottali. loolu maa ngi koy wax nit ñi. mu ne loolu maa ngi koy wax nit ñi. kon nag. kon nag. nañ góorgóorlu ñu rafetal suñu ànd ci yàlla. nañ góorgóorlu ñu rafetal suñu ànd ci yàlla. ñuy dimbalante te yàlla tax. ñuy dimbalante te yàlla tax. man day feeg maa ngi dund. mu ne moom day feeg mu ngi dund. képp ku ma gis mu jàdd ci yoonu baay bi. képp ku mu gis mu jàdd ci yoonu baay bi. danaa ko wax. dana ko wax. te fasuma yéene it yoon bi. it wàcc yoon bi. loolu maa ngi koy wax. loolu di ko feddali. di ko feddali. te duma ci nopp. te ci doxam. yàlla yàlla dimbale nag. yàlla dimbale nag. bañ tegu ca yoon wa. bañ waree. nam waree. ak na ko bàyyi rëddee. ak na ko bàyyi rëddee. mbokk yi ñu ngi leen di ndokkee. mbokk ñu ngi leen di ndokkee. ñu ngi ngi leen di ñaanal yàlla. suñu ko yàlla nangu. yàlla na ko yàlla nangu. yàlla ci ñun. yàlla yàlla seet jëm ci ñun. bëtëm mbëggeelam. bëtëm mbëggeelam. bëtëm ngërmandeem. bëtëm ngërmandeem. bëtëm yàlla wattuñu ñun ñëpp. yàlla wattuñu ñun ñëpp. te wattuñu gëm yàlla. te wattuñu ci gëm yàlla. wattu ci suñuy doom. wattu ci suñuy sët. wattu ci ñu yàlla takkale ak mbooloom diin yàlla yàlla dara góoram ci suñuy jabar. suñuy jabar. yàlla nañ nekk ñu mën a jëmale ci diine. yàlla nañ nekk ñu mën a jëmale ci diine. suñuy doom. suñuy doom. nekk ñu mën a jëmale ci diine. yàlla nañ nekk ñu mën a jëmale ci diine. suñuy àndoo. suñuy àndoo. yàlla nañ nekk ñu mën ñu mën jëmale ci diine. yàlla ñu yàlla wattu. wattuñu ci yàlla. wattuñu ci gëm yàlla. suñ nawet bii ñu nekk. suñ nawet bii ñu nekk. yàlla ñu ko yàlla àggaleel. yàlla ñu ko bëggee. te nañ ko bëggee. wala nu raw nañ ko bëggee. yàlla moo ko man yàlla ko man yàlla ñu ko defal yàlla ñu ko defal ñun amuñ benn pexe ci mën a defar nawet ci mën waaye yàlla mën na koo defal waaye yàlla mën na koo defar yàlla ñu ko defal ko defal may ñu ci mbooleef yu bari yu barke may ñu ci mbooleef yu barke te def ñu muuloo ko ci sant yàlla ci sant yàlla gan ñi ñëw gan ñu ñëw gan ñi ñëw gan ñi ñëw ak ñi nga xam ne ñëw nañ ci gàmm gi. gan ñi nga xam ne ñëw nañ ci gàmm gi. yal na leen may delloog jàmm. yal na leen yàlla jàmm. fekk jàmm. fekk jaaram seen njaboot yëpp ñu fekk leen ci jàmm seen njaboot yëpp ñu fekk leen ci jaaram yàlla boole ñu ak ñoom dimbale yàlla boole ñu ñoom dimbale may ñu barkeb yonent bi baay may ñu baay ñaar yooyu buñ ko amee ñaar yooyu buñ na ñu ngi gërëm nag mbooleem ku ñëw ñu ngi gërëm nag mbooleem koo xam ne ci biir réew mi nga jógee. koo xam ne ci biir réew mi nga jógee. wala nga ci réew wala nga ngi gërëm it suñ doom yi nga xam ne ñu ngi jàppalante ak ñun. ñu ngi gërëm ngi jàppalante ci fedd li ñi nga xam ne defoon nañ ko ci ci ci ci tant bi. gërëm li defoon ci tant bi ñu ngi koy feddliwaat. li ñu bi ñu ngi gërëm ñi nga ñi ko taxawee. ñu ngi gërëm ñi ko taxawee. ndax liggéey bi liggéey bu rafet. ndax liggéey bi liggéey bu rafet. suñu doom yi ak suñu jarbaas yi. suñu doom yi ak suñu jarbaas yi. taxawu nañ ñu taxaw yu mat sëkk. taxawu nañ ñu taxaw yu mat sëkk. lu jar may jaar ci ay tur. mu def gànnaaw lu jaar ci tur. ñoom xam nañ. yéen la xam ne. man it xam naa. moo leen xam na. gërëm naa leen te maa ngi leen di ñaanal. mu ne gërëm na leen te ñu ko doon ñaanal. maa ngi leen di ñaanal yàlla def leen i mag. mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla def leen barab. def leen ay mag. def leen ay mag. def leen mag ñu barke. def leen mag ñu barke. def leen mag yi lislaam. barke def leen mag yi lislaam. def leen mag yi tariqa Cheikh Ahmad Tidiane. def leen mag yi tariqa Ahmad Tidiane. yàlla yàlla def loolu. yàlla yàlla def loolu. ñuy ñaanal itam. ñu ngi ñaanal itam. boo leen daayira yeeg jamiya yi nga xam ne taxaw nañ jàppalante ñun ci xew yi. mboolem daara yi ak jamiya yi nga xam ne taxaw nañ jàppalante ñun ci xew yi. muy ca gàmm gu mag. muy ca gàmm gu mag. muy ci gàmmuwaat. muy ci gàmmuwaat. ñu ngi gërëm itam. ñu ngi gërëm itam. mboolem service yi. mboolem service yi. muy Senelec. muy Senelec. muy Sones. muy Sones. wax dëgg yàlla. muy wax dëgg yàlla. xaw nañ taxawaay bu rafet. taxaw nañ taxawaay bu rafet. ñu ngi gërëm rajo Kaolack. ñu ngi gërëm rajo Kaolack. ndax Sones. ndax su ne. ñun ñëpp gis nañ. ñun ñëpp gis nañ. lu jiitu fani gàmmo yi. lu jiitu fani gàmmo yi. ni bi doon dogee. ndax jëloon na sax suñ xalaat. jëloon na sax suñ xalaat. ñu ragal. ñu ragal. ne mën naa am loolu dal ñu ci ci guddi gàmmo gi. dalu ñu ci guddi gàmmu bi. dalu ñu ci gàmmuwaat bi. loolu sant yàlla la. loolu sant yàlla la. waa Sone si itam taxaw nañ ci ndox mi na mu war waa nañ ubbi nañ ay robinet. ubbi nañ lépp loo xam ne lii ayib na fii ñu ngi cay taxaw di ko defar. lépp loo xam ne. ayib ngi koy ñu ngi taxaw di ko defar. di eh, taxaw loolu yëpp. loolu yëpp. dimbalante ci gàmmu gi la. dimbalante ci te jar na ko. te jar na ko. ndax ci bi lañ koy def. kon nag. kon nag. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi gërëm. mbooleem taalibe yi. ñu ngi gërëm mbooleem taalibe yi. ndax lii ngeen def. ndax lii mooy sagab ci ci ci taalubeem. mooy sagab bi ci taalubeem. pay bu nekk. pay bu nekk. dafay bëgg bu xewlee. dafay bëgg bu xewlee. gis ak njabootam. gis ak njabootam. gis nañ leen. gis nañ leen. yal na leen yàlla gis. yal na leen yàlla gis. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na leen yàlla defal barke. yal na ngeen delloo ànd ak wépp yi. yal na ngeen delloo ànd ak wépp yi. ànd ak ngërëmal yàlla. ànd ak ngërëmal yàlla. ànd ak ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci biir gàmmo gi. ci biir gàmmo gi. bi ñu nekkee ci biir waxtaan bi. bi ñu nekkee ci biir waxtaan. loolu délégation Moustapha Cissé ñëw na. délégation bu Moustapha Cissé ñëw na. délégation Moustapha Cissé ñëw na. nañ ko daan defee. nañ ko daan defee. mbooloo ñu koy gërëm. ñu koy ñaanal. la ilaha illallah حي لا لا يا حي لا لا يا حي لا لا حي لا لا لا حي لا لا لا لا لا حي لا لا حي لا لا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 حيل لا لا حيل لا لا حيل لا لا حيل لا لا حيل لا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 la la